عين بالنذر أو سمع الأذن بخبر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى صحابته رضوان الله تعالى أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفه ومن مهول شهوات إلى جنات قربات اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام حكيم يا عباد الله أوصيكم والنفس بتقوى الله عز وجل سيرا وعلانية بيت المسلم من أسباب الفساد أولاد الطلاق والرفق السوء أيها الإخوة الكرام لا زلنا في البيت المسلم وانطلاقا من أن الأسرة لبنة أسرة لبنة المجتمع الأولى فإذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسد فسد المجتمع وانطلاقا من أن شقاء الزوجين ينبغ من شقاء أبنائهما لذلك كان تربية الأولاد في الإسلام تحتمل المكانة الأولى في توجيهات الدينية يسكى المرء بسكاء أولاده ويسعد بسعادتهم وأحسن اختيار الزوج وأن أحسن اختيار الزوجة أحد عوامل استقرار الحياة الزوجية وأن كل وأن قيام كل من الزوجين بواجبه اتجاه اخر احد العوامل الاستقرار قال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ممكن يقول ابو سنت يالا وايدو سنت يالا بو باه سنت يالا سبحانه وتعالى من حمل مو يما يات كاتان ما ني فيكي بين ديس واري خطبه جمعه وايدو جيل سي يند بي صلى الله عليه وسلم اكوا كرم الصحابه مي اكيب كو بيان تي الى يوم القيامه ممكن يقول تي ني واتا ليك حمل موي كير ولا نيك في جمره بي نيك الحمد لله daanaka njaboot yëpp ñu ngi si holiday mu nekk warugar pour nekk ni waajur yi naka la ñoo mën a jëlaale seen responsabilité pour gën a mun a xale yi si diine ndig xale jamono bi ñoo nekk si school bi rawatina si jamono bu ñu nekk nii am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy dugal si xeli xale loo xam ne suñ diine nangu ko nga xam ne ñun tamit ñu war a def suñ warugar delluwaat suñ doomi si nga xam ne moom la ñu diine li nga xam ne moo nekk seen njëriñ àdduna nekk seen njëriñ àllaaxira moo ñu def leen tarbiyaat waare boo xam ne delloo na si yàlla xamal leen yàlla subhanahu wa taala mu ne nag eh, mujtamaatu islamiya maanaam société jullit su baaxee rek société bi faa baax waaye su yaaxoo rek yaaxu te bu bëri bari moo fay nekka loolu nag waaye mu ngi commencé nag si ñaari waajur yi mu ne mu ngi commencé si ñaari waajur yi nga xam ne ñooy dencante ñaari waajur nag lan moo war a nekk seen siyaar lan moo war a nekk seen melokaan si biir kër gi mooy diine mooy islam nga xam ne moom lañu war woon njaboot bi su ko defee rek njaboot yi mun a mag si loolu waaye su fekkee ne nag ñaari waajur yi ñàkk a juboo wala ñàkk a nekk si diine wala ñàkk a faale li nga xam ne mooy seen diine loolu moo indi si njaboot mooy ne njaboot boobu tamit su leen yàlla dimbalew rek duñ faale mbiri diine nit ko xam ndi gisuñ ko seen waajur yi mu ne waaye nag fan la mbiri di commencé islam mu ngi commencé pour nit ki war a build family mooy ne nit bu ut jabar fan la ko utee jabar ak si ban famille laa jabar ak jabar mo ban façon yi jigéen la mu ne fa la mbir yëpp commencé ndiki suñu bëgge defar usra rek manam family rek mu ne nañ seet si ixtiyaar maanaam tànn bi nga xam góor bi mu ko koo li nga xam moy jabaram way nak yàlla subhanahu wa taala di indi ci alquran li nga xam ñu suñ ko jàppee rek lolu moy ñoo jubal lo xamne mo suñ ko nekkee moy jubal suñ njaboot way nak mo tax suñu am society bu baax yàlla subhanahu wa taala mu ne inna hadha alquran yàlla subhanahu wa taala mu ñoo rifaa si li nga xam ne alquran di ñu wane alquran bi nekk suñ diggi loxo muy wax yàlla subhanahu wa taala mu ne yahdi lillati hiya aqwam mu ne mooy li nga xam ne mooy suñ jubluwaay waaye mooy suñ jubal suñ bëggee jub bëggee nekk si yoonu siraatal mustaqim mu ne nañ jàng nañ topp jàngale alquran bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala wàcc na ko si yéen moom sallallahu alayhi wasallam mu ne man lam yetbaa huda alladi jaa bil quran fa lan tastaqima hayatuhu waaye ki nga xam ne topput li nga xam ne moom la ñu alquran indi kooku nag nga xam ne dundaa bu mun a sa jub mukk ndig alquran yàlla subhana taala daf ñu wane suñ buggee jub rek nañ dem si li nga xam ne mooy alquran mu ne fa lan tasati xayaatuhu ma daama ma za yaqulu allah subhanahu wa taala fi ma ida nasaba xilaafu bayna zawjain fi ma ida badaat azawj an zawjatihi badaat taharrukin an sirat almustaqim mu ne nit lan saay bu ñaari waajur sax jotee alquran indi na leen solution pour naka ñoo aate ñoom ñaar pour lan ñu mun a jub ñu mun a baax mu ne waaye na su ko su ko defee nag alquran fan la leen naa jëmee moo ñëw ñu ñaareel ñu teg si yoonu siraatu mustaqim ku góor ki mun naa juum ku jigee ki mun naa juum waaye ñoom ñëpp farudduhu ila llahi wa rasulihi yàlla subhanahu wa taala mu ne nag nañ ko delluwaat si yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko defee rek mun a solution na am aati na si insha allah li xew si jamono ji léegi nga gis góor gi di jubal jabar ji ne déedéet wala jabar ji di jubal góor gi ne déedéet léegi nag dañ ko gis si usra nga gis waajur bi góor di kuréel yar xale bi nga dégg yaayam bi ne ko bàyyi ko bàyyi xale bi bu ko soonal bu ko lii wala yaay bi du lii nga dégg papa ñu ne ko bàyyi ko loolu mooy li nga xam ne mooy indi problème si biir usra ndeg jubal mooy li nga xam ne mooy defar xale bi jubal boobu la yaay subhana taala wane suñ ko bëggee am nag nañ delluwaa si alquran bokk jullit yi ayuha ixwatu kiram yaqul llahu azza wa jalla wallaati taxaafuna nusuzahunna ay inxiraafihinna xurujuhunna an ittaa mu ne léegi-léeg nga gis nga dem ba gis ne ah kii de pour maa yóbbu maanaam jabar ji fi maa yóbbu mooy ne mu ngay gën a si yoon parce que bëggul ma yar xale yi bëggul ma teg xale yi si yoonu siraatul mustaqim yàlla ne kooku nga xam ne yaa ngi ragal si moom pour njaboot bi war a mun a tasaaroo mu ne kooku nag am nga foo war a imaam moom wallaati taxaawuna nusuhunna fa'izuhunna yàlla subhanahu wa taala mu ne nag na ngi leen waare na ngeen delluwaat si yàlla na ngeen delluwaat si alquran wane ne gisal li nga li may def nii pour njëriñ xale yi tey ak ëllëg la ndax gis nañ si ay problème yu bëri yoo xam ne xew na kii propos kii bugg a jubal ñu ne déedéet bi xale bi dem génn kër bàyyi njabootam parce que social bi jël na ko ndig ne waajuram waru koo yar iba ida jabar ji moo bañ wala ku ji ku góor ki moo bañ loolu yëpp am na loolu islam bi wane déedéet mu ne fa ay zohunna na ngeen delluwaat si yàlla subhanahu wa taala muy alquran bi nga xam ne mooy su mooy su solution bi mu ne fa laa budda an tuizuha fa laa budda min an tuuda laha badalan an tuzkiraha mu ne baax na pour nga fàttali ko nga fàttaliku li nga xam ne mooy diineem fàttaliku li nga xam ne mooy yàlla subhanahu wa taala ndax mu mën a dugg si yoonu siraatul mustaqim amma talaaquha min duni wazin min min duni irsaadin من دون توضيح من دون بيان لها حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع فهذا من عوامل الجهل mu ne waaye nag góor gi tamit bul gaaw a mer sa jabar jote ngeen rek si affaire yi xale yi nga ne ko fase naa la wala moom mu tiis nga ne déedéet yàlla yàlla subhanahu wa taala mu ne déedéet fala budda dañ war a waxtaan balaa baat yi fase because loolu tamit su ñëwee rek am na beneen yàq-yàq bu moo gën a indiwaat si njaboot bi ndig yàlla may na leen njaboot nga dem ba mer commencé nag indi baat yi fase ngeen tasaaroo kii dem fale kale dem fale kale amee xale yi léegi-léeg sax ñu ne kii yow kii yow doo gis sa xale yi loolu am na lu moo def si loo xam ne baaxul si xale loolu yàlla subhanahu wa taala lan la insiste mu ne fa aiduhunna nañ leen delluwaat si yàlla subhanahu wa taala واذكروا فان الذكر واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين نك فاتلي يا سبحان الله من نك فاتلي وانت نك فاتلي دفاي جري جولي بي هاكا يكون لك ان في نون همنا ويا سبحان الله همنا دومي ادم دفاي فاتي كنت انسان سمين انسان لكسرة نسيانه دومي ادم مويلان موي كي فاتي كي بري لي مو فاتي كنت يا سبحان الله اندي واجو ايا بي نيري ساي كوي فاتي رك نندير واسي القران كم يا سبحان الله وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وهذه المؤمنه ذكرها بأمر الله سبحانه وتعالى ذكرها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم موي نفاتي لكل هذا موي القرآن فاتلقى بموي سنة النبي عليه الصلاة والسلام موي وحني سبحانه وتعالى موي وحني صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا ما لنا يدنكو ين غوري pour ngeen look after jigéen yi ngeen yërëm leen baalal leen jàppale leen loolu boo ko def si ngeen yëpp yëpp sa salaam dénk na ko wax fahzuru wa hada amrullahi azza wa jalla hada tawjih alquran fa'izuhum wahjuruhunna léegi li sax mu ne soo waaree daf nga gis ne waar bi ba léegi dara demul mu ne bàyyi ko distance boo xam ne da nga ko di nga nekkaa moom si kër gi waaye baat bi nga xam ne mooy baat parce que mooy li nga xam ne moom ngaa mu jee wax waaye nag jeex ko distance boo xam ne bu mu ne ne yow de li moo def neexul la waaye nag doo ko génnee waaye doo ko fitnaal gannaaw bi nga xam ne delloo ko si yàlla waaye tawul mu delloo si yàlla waaye yàlla subhana taala mu nga fahjuruhunna na nga am distance boo xam dafa nekk sa diggante yaa moom almarha thaniya min al mualaja al hijrani wa hiya fi lbayti la an tursilaha ila al bayt mu ne mooy li nga xam ne nag bu ko daaxamu génn kër gi déedéet bàyyi ko si biir kër gi waaye émale émale ko maanaam ni nga jëflante moom na nga ko émale ndig mu si loo xam ne du tànk tànk bu baax mu ngi si tànk boo xam ne mu ngi indi fitna te loolu baaxul si njaboot bi yàlla subhanahu wa taala mu ne na ko bàyyi si kër gi waaye na nga na nga jox distance sa diggante yaa moom mu ne nag walaa na taala wala taxrujuhunna min buyutihinna wala yuxrijna mu ne waaye bu leen génne si kër gi waaw te nag suñ demee ba inse sax mun a travail nga si kër gi ndik loolu yëpp mu nga indi usra maanaam indi famille boo xam ne dafay tasaaroo te islam bëggul loolu kon mbokk jullit yi mahma takun alqadiya alkabira tasur wa tasur ida baqiyat azawja fi lbayt zawjiha fa iduhunna wahjuruhunna bi madaje mu ne nag su fekkee ne mbir demee sax bëgg naa tar bëgg naa métti yàlla nga wane xataa si lal bi sax jox ko gannaaw si lal bi loolu yëpp pour yar ko waaye génne daal mun na nekk li nga xam ne mooy la solution mbokk yu leen mu ne waaye li nga xam ne mooy tundaam yàlla subhana taala mun ne bu ko xañ waaw fa in ataanakum fala tabu alayhinna sabila inna allaha kaana ali inna allaha kaana aliyan kabira waaye nag bu demee bi nga gis ne muñ na léegi mu ngi delluwaat si njub mu ngi delluwaat si baax yàlla subhana taala mu ne bu baax nag na nga jëfante moom jëfante bu rafet aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum saari muslimin wa wa atubu ilayhi innahu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 يضرب غلام فقال عليه الصلاة والسلام اعلم إيه يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام وإن خفتم سراكا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا yonent عليه الصلاه والسلام gis ke ne si saxaaba yi mu ngi dóor doomam walaam dóor di yar di yar pour jubale ko dóor lu mun ne ko yaa aba mas'ud mu ne yooyu yow doomi fabi mas'ud yàlla subhana taala bi nga a ne moo la jox xale bi moo la gën a am kàttan moom yàlla subhana taala pour teg la coono bi ngaa teg sa doom parce que léegi-léegi nga gis waa ji boo xam ne tamit mel ni dafay bañ doomam maanaam di bi loo xam ne islam mu ne déedéet waru koo def yéen sa salam di wax ak sahaaba boobu ne ko dóor yi ngay doo sa dóor doom waruloo koy def ndig am na dóor yoo xam ne dafay uppa dafay gaañ mu ne xamal ne yàlla subhana taala mi la jox doom bi moom moo la gën a moo gën a am doole sa kaw yow loolu tax yàlla subhaanahu wa taala mu ne wa in xiftum shiqaaqin baynahuma mu ne soo leen demee bi ragal nag léegi nag tàggatoo mun naa am diggante góor ak jigéen fam asu hakama léegi nag mbiri munu leen koo sol ci biir néeg bi problème yi mënu koo sol si biir kër gi mu ne nag dem leen ngeen uti ñoo xam ne ñu mandu lañ ñoo xam ne ñu jub lañ ay kilifa la ñoo doon pour ñu toog wax diggante bi mu ne fa fam asu hakama min ahliha wa min ahlihi yow sa waajur يوكو غورتي اك موم سي جيجيني سي واجورام سو فيكي نك بوغانا نجام ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما سو بيد في الله سبحانه وتعالى نسي ديف جاما ان الله كان عليما خبيرا ويا الله سبحانه وتعالى لي مو راه تاو سي فاميلي بي ييب يالا مون خام نكو امو دار لوكو سي نوبو كي نيك سي ديغا يالا خام نكو كي نيك سي ديغا يالا خام نكو ويا الله سبحانه وتعالى بي ليغي مو ngi ديلو فاميلي بي بور ني جوبو بون بوك جوليت لولو بوكا ني خا ميني ايو الاخوه الكرام هذا مرحله لا بد ان يسلكها الزوج قبل ان يطلق mu ne loolu nag bokk na si li nga xam ne góor gi war naa mun a dem ba jox jox si yoon bi mooy ne yoonu juboo yoon boo xam ne bu demee ba gis ne ñoom ñaar mënu ñoo sol mu indi eh, ki nga ku nekk eh, waajuram ñëw teewee pour ñu waxtaanee li nga xam ne mooy njaboot bi mbokk jullit yi bokk na si li nga xam ne gën a am solo mooy naka la ñoo yaree doomi si biir kër gi ndik waxtu lañ nekk waxtu boo xam ne waxtu holiday sama holiday bi xakañ njaboot bi si ñun la ñoo gën a nekk li ñoo de lu nekk si biti wala si school bi mu ne nag waruga boo xam ne yém sa sala ne kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ra'iyatihi mu ne waxtu bi rek la waaju bi am waruga digga digga digga si njabootam pour gan fàttalikoo li nga xam ne mooy yar li nga xam ne mooy diineem li nga xam ne mooy cosaanam pour mu xamal ko li nga xam ne سيجينا سيمبلا دي أمنا يهتو لدي لو أمر فاي حسن دومي كوبا لك واجب لدي لك أمونا فيه نكو هكاي لي موي دين لي لس إسلام ستانة بوجينا سيمبلا دي لي لي لي لي لي لي جانغال رواتي لي هم اللي جسنا يكو في هم اللي يكوي فرصة سين دومي بني جانغال لينكو منو كوبا لك نين رجال يالا سين سين حالي كوبا لين لي هم اللي يالا سبحانه تعالى مولا ستانة ريال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكن هذه الآية جاءت في سورة الطلاق منها معناها السياق man yattaqillaaha fi tatliqi zawjatihi yajal llaahu lahu maxraja fi awdatin ilayha aaya bi nag mu ngi wane ne nag kii gaaw a fase jabaram sax mu ne na muñ ndik yàlla <coughs> yàlla subhaana taala mu ngi wax ne ku muñ li nga xam ne moom la la yàlla santaane la nekkat yi mu ne yàlla dina indi lu génn li nga xam ne muñ nga ko mooy ne bul gaaw a mere bul gaaw a fase bul gaaw a def li nga xam ne mooy indi eh, tasaaroo njaboot أما أن تدرك المرأة أبعد حلالا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه سبب تشرد الأولاد من اللي حملك موي كوس نجبو بي تسارو نجبو بي كنا كدم سيون يا سبحانه وتعالى من دي دي نين موي نيك موي مو بريك أمل مو جير مو قول عليه الصلاة والسلام لأن يؤدب رجل ولده خير له من أن يتصدق بساعة من اللي حملك موي يا الله سبحانه وتعالى من يرفع وات من يدلو وات من يرحل mu ne nga yar sa doom si yarin bu baax mu ne moo gën ngay saraxe sarax bu ruuf sarax bu xam ne sarax bu rëy la si yéen yaa ngi ko jëf fi sabilillah mu ne ndig sa doom yar boobu nga ko yar moo gën eh, loo mun ne saraxe si kaw suuf lan xale boobu su yaroo kooku mun naa defar tamit beneen nation kooku tamit mun naa defaat bi nga xam ne loolu société bu baax rek la ñoo jur mu ne na yar bi mooy li nga xam ne moom war a jiitu mbokk jullit yi mu ne muru awlaadakum bi salaatin wa hum abnaau sab'in واضربوهم عليها وهم ابناء العشره وفرقوا بينهم في المداجع بوك انا سيري خامني بوك جولي موم لا يري سين دومي موي جولي موي جولي تما تي خولي دي بس نيو سي كاي ماني لين يوبو تي لين يوبو كاي بي نيو مونا غيس خامني اها كاي لي لو لين وار لا ني ماكسي اولادكم ني لين ديغا سين جولي سين دومي نيو جولي واو مون سي امي جوم ياري ات واضربوهم عليها مون سي امي افوك ادنا نيو جولي ني لين يار dóor waaye du dóor boo xam ne dóor bu gaa bu buy eh, gaañi la wala dóor boo xam ne dafay lor déedéet won ko ne leen julli da ko war a def bépp ko miin su la gisu sax suba te julli jëlee sax dina jox julli ji xam nga dina xam ne lii lu ma war la ndig lan yar nga ko fi mu ne wa farriqu baynahum fil madaaji buñu demee ba gis ne góor bu am fukki at ak jigéen bu am fukki at ñu ngi ñu ngi bokk beneen la di fanaan mu ne nañ leen séparé loolu jàngale yonent bi alayhi salaam la wa nabi alayhi salaam yaqul al muminu qawi خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا وكذا ولكن ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان النبي عليه الصلاه والسلام mu المؤمن القوي qawi jullit bi nga xam ne dafa strong dafa dëgër dëgër gëm si nan xam li nga xam ne moom la yàlla santaane mu nekk ci tegu si ak njabootam mu ne xayir moo gën si jullit bi nga xam ne dafa ko jullit bi nga xam ne dafa faalewu lu xale yi def baax na lu ci waa kër na mu bi nga xam ne fa toog tegu si li nga xam ne mooy yoonu siraatul mustaqim mooy quran ak sunna mu ne jullit moo gën xayir ngeneen ko mun a ki ko ko mun a am mooy ku tegu si loolu mu ne ko wastain billah waaye nag lu nekk rek na ko yaakaare yàlla maanaam na nga wéru si yàlla sa yaakaar yëpp na nekk si yàlla subhanahu wa wala taajal bul gi bopp léegi ne xale yi sonal la xale yi te am ñu digal boppa mu ne waaye bul gi bopp yaral rek continuer si yar boobu rek waaw mu ne way asaabaka shay'un fala taqul anni fa'altu kada léegi nga dem ah mu ne su ma xamoon moo def lii mu ne naw nit su ma xamoon dafay am bunt seytaan mooy li yàq xel doomi adama man sax su ma am sax ma ko defee lu baax su ma am sax du ma def lii su ma am mu ne law xaaza mu ne baat boobu rek mu ne fay ubbi buntu seytaan seytaan dafa am doole ah commencé na di ceeñ maa ngi nam xela ma ngay ceeñ xaaral ma gënaa suuf suufal ko ndax mu bàyyi njabootam mu génn si kër gi wala mu génnee njaboot bi si kër gi nit la seytaan loolu la bëgg mu ne nag na nga na nga gëm ne taala lu mu si sa njaboot rek loolu moo am waaye terewut ne yow waajur bi di nga def nga xam ne mooy sa kéemtalaay mu ne loolu mooy li war waajur yi ay من بينها التربية من المسلمات التربية النفراء والخطر من اللي يقول لك باي حالي من السين بوكال وكان أولا موك جولتي رمان سي جمال جيني نيكا حالي بوك جس لك موكي تي موبايل ممكن موكي تو كاكس دي هول نيك واجو تي موبايل كالي تي موبايل كو نيكا دو حم حالي سيلا لن يورف رادنا نتوغ لنا مالي حتي لن يفاتي لكو لي يو واجو بي أما لو يفاتي لحالي أما لو لنا جانا سين ديني يتنقى بو موبايل واجو كاكس دي هول نايت بوك تتدار كن أم كن جيتي كن كن يا رسول الله لو حملة لقي لسه في هالفيديو سبب بعيد دو كم من الوالدين لين باي هنسي لولو من الك فراغ ما نام ميلن كان بري بري من باهم ولا سيما على شباب وسبابات أسير آخر هي في أسباب الإهراف الأطفال أيها الإخوة الكرام الحالة الفاسد ورفق السوء وهي أخطر شيء من شنو يومي تمت نلين تانا أندور يباه nañ xam fi ñoo génn xamal ñen la moo génnal ñen la ñu àndal fan la ñoo dem loolu yëpp waajur war nga see bàyyi sa xel su fekkee ne lu ko jar la nga ne dem leen bu ko jël nga ne non bu mu dem lu ko soo dem du jubluwaay bu baax ña moo àndal du ay nit ñu baax waaw su fekkee ne tamit waajur war ngaa mën a xam loolu sa doom mbokk jullit yi rawatina si jamono bi ñu nekkee yaqul azza wa jalla wa yawma idin ويوم يغض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان خليلا لقد ادلني عن ذكري بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا يا رسول الله تعالى من لا لبن الاسره بي لا لبن الفاميلي بي كرو يوم القيامه يوم يغد نعم ما بس نام ني كيفا ما تبارمم ديرتو ليغا خامني ورنا نكو ديف سي ادونا ورنا يم جيبوتام سي اسلام ورنا يتك جيبوتام سي يوني صراط المستقيم حمل لين دين يار لين من كرنا موي موي ماتو ماتو لخومبي يا خوتو زال mu ne ay yaa layta su ma xamoon du ma jàpp diw muy suma xarit ndikki kii yow du ma daan yóbbu si yéen siraat kii du ma daan advice lu baax kii daal moom affaire yu bon rek ataxas du ma rasula sabila mu ne su ma xamoon ndekete li ñu yonent bi salaa salaam doon jàngal muy alquran mu ne su ma xamoon ma tegu si loolu ndig lan moo njëkkee te moo mujjee yow mal qiyaama mu ne yaa walitanaa laytanii lam attaxidu fulaana xalila du ma jàpp diw muy suma xarit ndig du xarit bu baax loo tax kuy tànn di ngaa tànn xarit bu baax لكن أدلني لرا لما أن ذكري ثم فاتبك يا الله سبحانه وتعالى مثل ما دان يوب يب درني مسي يا الله سبحانه وتعالى بارز إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان غزولا li seytaane bokk jullit yi mooy suñ noonu amul keneen koo xam mu nekk suñ noonu mooy seytaane te seytaane su gisee ñaar ñu ànd si lu baax rek dafay taraay dafay góorgóorlu naka la koo yaaxee bon yàlla subhana taala mu du jot nag ñuy moyta suñ baaraam ne su ma xamoon du ma jàppa diwu xarit léegi li nga ne eh, xale yi dem leen fële dem leen ko mun a xam su fekkee sax mun a am ndig léegi-léeg xale yi ñu nekk rek fu ñu si loo xamee ne leneen la loo xamee ne baaxul 90 pour yëpp fu ñoo nekk si li ñoo nekk nekk loo xam ne lu leen a jëriñ la ñu ngi toog yoo xam ne lu nekk si eh, eh, nekkata social media bi loo xam ne amalu leen benn jëriñ mu ne waajur war nañ see bàyyi xel mbokk jullit yi lii mooy advice bi nga xam ne yàlla subhana taala mu ñu ko delloo si alquran bon mbokk jullit yi nekk na si jamono joo xam ne rek su suñ buggee suñ jamoo njaboot baax suñ jamono bu nekk jamono bu baax mbokk yu nañ delluwaat si li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi muy alquran sunna aqulu qawli hada inna allah amarakum bi an tu'addu qala inna allah amarakum bi an jalla sallu ala nabiyyi alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم اغفر لنا صحابة رضوان اجمعين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي سلم وسيله بالجنه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اللهم اعداءك اعداءنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا وعلما نافعا ويقينا صادقا ونسألك اللهم دعوة النجاة من كل بلايا ونسألك اللهم دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على عافية ونسألك الناس يا رب العالمين اللهم انصر شباب المسلمين اللهم انصر شباب المسلمين اللهم انصر شباب المسلمين اللهم أيدهم اللهم أيد الحق وإلى صراطك المستقيم اللهم ارزقهم سفر صالحا وعلما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعليم بالبر آه. والفوز بالجنة آه. والنجاة من النار آه. اللهم يا رب